bu waxé dañ ne rek rek bëré rek est-ce que nga taxaw ak guuy ki xex ak mom bagaar ak mom té ñu bayyi bëré parce que. non lamb mom lamb bëré dóor nañ wax mais ñun mom waaj nañ and ak suñu mbokk dañuy ñaan ak yalla suñu borom may ñu ndam mais li ci def def nañ ko waaw. mayel moo doon ta nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena guy gi ne dugg nga foofu cinq fois waaye boo njëkkee woon ci moom dootoo fa dugg. waaw moom dogalul yàlla suñu borom nag mooy dogal ah. Ah, yaa may dégg. waaw mënoon na tamit te terewul damay bëre ak cinq ñooñ ndax yàlla suñu borom moo ko namm si man. kon wax jooju amul lu mu lu ma si tontu waaw moo doon tontu. Mhm. waaw comme moom guy gi moom moo fonk combat bi man mii xale nan laa war a def. bu ko fonkee dix fonk naa ko mille waaw waa Thiaré dañ maa yónni yàkkamti ma bu ñu demee nag ba si biir géew bi lu waay di wax rek na ko wax. guy gi nee na guy gi nee na dafa guy gi na dafa pare pour corriger la parce que moom nee na benn du may benn xale muy jaar ci kawam di jàll. waaw guy gi mënu maa yaa may dégg yàlla bu namee ne dama koy daan ala kulli dama koy daan dégg nga ma moom du ma corriger waaw. waaw. gisee dernier après dernier combat moom Gris lu que mën nañ xaar si combat bii nii Reug Reug indi xeex boo xam ni tey kenn mu jeex parce que à chaque fois xeex nga ne ko dama xeex te ndax combat bi mën nañ xaar Reug Reug indi corps à corps. ñun moom luñ ciy tontu du bëri dañuy bàyyi ba bés ba rek waaw bés ba moom incha allah ku ko tardé nga tardé du rëy bu fekkee moom li muy waxee moom dëggal na ko incha allah combat bi du gaaw. mais boobu léegi gars lay laaj gaaw laa la wax du gaaw. gars lay laaj ne est-ce que bu fekkee mën na fekkee moom mën na maa tenir. Mhm. combat bi day gaaw bu fekkee mënu maa tenir nag yaa ma gën a xam. Mhm. ndox du bàyyi yoonam. gars yi nee nañu bu guy gi ñëwul yow da dem. non dañ ko fay fay ma yaa may dégg man jëluma kii mag la wala man maa war a sama bis tama kaa respecté mhm. sama lu ma expliqué man néew ma fi naan kii mooy xale yaa war a dem non bu leeree rek ma dem bu leeree bu leerul ma taxaw ndax waa caare dañ maa yónni yàkkamti ma. eh damay dégg gars yi gars yi boobu ba léegi ñi ngi lay laaj benn question waaye ba léegi tontu wuloo ci xeex bi. gars yi nee nañ est-ce que rëg-rëg taxaw jàkkaarloo ak guy gi face to face ak moom. waaye kuy sa papa ñu ne Khadim Ndiaye un kooku boo namul xeex yow si yow la la buuse ah eh. nga ne ma ne kuy sa papa ñu ne Khadim Ndiaye. kon ñun ay namuñu ay xeex xeex fii la buujoo par sëñ Bamba. Lamine waaw. combat bi fan nga ko préparé. combat bi fu ma ko préparé xanaa caaray laa ko préparé waaw caaray laa ko préparé ànd ak samay mbokk. waaw waaw. lan ngay yóbbante yan kàddu ngay yóbbante guy gi. dama koy ñaanal jàmm ñaanal ka ak ay supporteram wér ba jour ba ñu ñëw ñu feesal stade del yàlla suñu borom may ma ndam ma dem sama yoon. waaw non violence ñun moom ñun ay lébu nañ ñun moom xamuñu loolu waaw mhm. moom laa la wax dañ kaa fay fay ma millions yi ñu ko fay man la moom lañ ma fay amul xale moo war a def si biis ba biis ba daal lu mu leer lu mu laaj ma def ko bu laajee taxaw ma taxaw bu laajee dox si koom ma dox si koom du ma ko dànk dem waaw waaw li olof Ndiaye di wax ku la jiitu si léegi lenn moo lay wax fi nga toogee defe naa foofu laa bëri Gris 2 ah waaw maa ngi koy maa ngi koy wax mu ñëw waaw. non amul sens amul sens dañ ko fay fay ma yaa may dégg mayuma sens làmb moo ñu boole moom dégg nga ko ci biir communiqué am danaan la kii boo ko jëlul ren déwén boo ko jëlee day gën a métti fi mu ko jël nag moo gën a métti fuuf moo gën a bon ndax rërëg mi xam nga maa ngi wax benn kalam mais bàyyiwoo leen ci xel. Mhm. kalam bi naa ko indiwaat muy maanaam gis nga ñuy dem géej mhm. ñuy dem géej ñoo xam loolu sama gars yi ah waa ñoo xam loolu. uppa uppa bu ndaw mooy xale bu ndaw bi as léegi pour. déglu ma fii pour moom maanaam uppa bi lu mu def ba xëccu day xëccu naram mag lu taxaw si kanamam rek da koy fexaanse parfois day am naram mag noonu la mel maa guy gi parfois damay am naram mag. waaw waaw mais mais mais Reug Reug Reug Reug dama ànd ak Reug dama ànd ak waa Bantamba TV ñu ñëw fekk la fii Caaroy Géej ñu ñëw fekk la Caaroy Géej nga taal gaal gi yóbbu ñu ba ci biir géej gi teg ñu ci benn gaalu maare saxaar boobu Reug Reug rek nga soxla Reug Reug ne du yow. guy gi ne du bëreeg yow nga ne ma bis bu boo ma guy gi jëlee dinaa ko duma dinaa ko daan mais wax boobu tey dafa mel ni da nga cee génn ndax ba bële ñu la koy laaj mais nangu woo cee wax. non du ma si génn. ndax man man ne lébu laa du ma wax di si tell ginnaaw guy bu fekkee mën na maa tenir laa la wax dina neex dina yëngu xaw ma nag ma dóor mu sàngooy loxoom ñëw songo ma waaw leer na tontu naa la ah? voilà waaw. mu ne ñaari minute la la am nga gën mhm. ci waaw dañ loolu moom amul liñ ciy wax mais nañ bàyyi ba bis ba rek nañ bàyyi ba bis ba incha allah lépp dina la yow ah attends ma ñëw mais mais mais kii nee na ma ñëw mais ma ñëw waaw xam nga tey jii làmb man làmb làmb nañuy def du ñu bàyyi dara lamb lu mu ñu jaralul amul sunu àdduna lu mu laaj pour am victoire dañ koy def si kàttanu sunu borom waaw. xaaral du bii du bii teel tegu noonu non xaaral du boobu. si biir bi nekk fii demal ba pare indi rek. non fii boo demee ko dara. ma ko mu nga seetaan vidéo bi ne jooy boobu da ci woote wàllu te nee na li nga yaakaar amul parce que ñoo de dëkk biir fi mu dëkk di ko suuxal te loolu yàgg na ci làmb nee na loolu dootu ci wax ndax ay kilifa non non micro central non man loolu dootu ma si wax quoi waaw ndax man moom wax naa ko ba pare naa parrainage amul leen lu ma si wax gis naa li fi wax yëpp bari combat bi yàgg na taxaw trois ans ngi nii li fi wax lépp pour jaay combat bi la le jour ji ñaata cinq jours xaw ma quatre jours. waaw kon jaratul nekk fii di wax wax ju bëri. xam nga loolu expliqué dañuy ñaan yàlla suñu borom bés bis ba rek yàlla suñu borom may ñu ndam. Eh, guy gi nee na bis bu ko Reug Reug daanee mu dem nekk yéexu est-ce que wax jooju tiitalu la. non loolu du ma si wax xamal tax du ma si wax xëy na moom euh, li ma lay wax mooy maanaam li bëy li bëy lekk bay cëppi cëppi nag lekk nga na miig. Ah, ana pël dégg ma. waaw voilà combat moom nu ko jaralee 1000 jaral na ma 3000 ndax maa ko gën a soxla combat bi. ay eh, pël pël lu mu wax waaw. waaw. waaw. waxal waaw man dama am temps arrêt rek bu ma waree dem damay dem bu ma waree toog damay toog et loolu la ko mais man wóor na mu fu ma ko jàpp. dina tëdd si kàttanu suñu borom. ñu bàyyi la nga nga tàggatoo ñu bàyyi la nga woote. waaw maa ngi maa ngi gërëm ñëpp bu ma limee damay juma ak sama soldaar yi ah. soldaar yi maa leen di bëggee di nuyu di nuyu capitaine yi Thiaroye Géej yëpp aw ma seen fay gis nga capitaine instant yi dañ ñëpp dañoo dematuñu géej dañoo dox semaine xam nga ma la expliqué dañoo dog semaine ñëpp ñëw pour combat bi kon maa ngi leen ñëpp nañ ñëw jàpp si combat xam ne stade dañ kaa war a feesal del waaw di masawu nag ah, dangi ndaw ndax daa defoon daa dafa ñëwoon caaray fekk gaalam daanu maa ngi koy bu baax a baax di santaat yàlla bu baax a baax di nuyu ñëpp képp ku ma jàppale rek maa ngi lay sant bu baax di la gërëm supporter yi waaw supporter yi tamit supporter yi tamit maanaam ñun moom ay lébu nañ ñun xamuñu violence waaw ñun dañuy sañsa ba jekki supporter seen mbër ma daan ñu ni am ñun duñu yàq ñun amuñu lu ñuy yàq waaw di oo fukki penc ak fukki penc ñaari ñaar yi maa oo si combat bi nañ ñëw jàpp si combat xam ne combat bi seen combat man caaree géej laa dëkk di woo waa Sicap Mbao Diamaguène Fora ñëpp maa ngi leen di woo di leen wax.